salaamaaleykum maa ngi lay nuyu Fama di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp di nuyu Sénégal Bruce Dia de Real la One ok donc ñu gis euh, nga génne benn mixtape de cinq titres ñu bëggoon euh, nga wax ci mixtape boobu.

am na thème boo xamante ne mu ngi mel ni rap gaal sama loxo genre ego tripping la am na thème mu jéegal boo xam ne yàlla dañuy delloo suñu xel yi si yàlla am na thème boo xamante ne dina mat la comme genre promesse fat suñu yàgg support ñoo xamante ne yàgg nañ di ñu follow duñu suivre ñu leen di promettre que ni bés dina ñëw fi ñuy séntu dinañ fa mës a egg comme genre promesse loolu grosso modo lii yooyu la. d'accord rab gal sama loxo cette année da bëgg a jël rab bi teg ko seen loxo ndax dina yomb. yee mooy suñu suñu suñu ambition yaa moom lañ ñëw pour def parce que nee nañ boo demee si benn gaale da ngay fëgg pour dugg instant bi boo ñëwee si benn game surtout nga ñëw mu nekk game boo xam ne rab la faaw nga ñëw wone ne. am na gan bu bees xam nga faa nga ñëw def loo xamante ne moo gën a dóob lu gars yi di def def loo xamante ne moo gën a tàng lu gars yi di def moo tax ñu naan def benn son dee ko rap galsen sama loxo boo xamante ne dañuy wane ne dañoo ñëw pour dëgg suñu tànk si bi rap galsen dañu ñëw pour xëcc rab bi moomu ko dañoo ñëw xam nga rek pour wane ne si rab bi lañ bokk te incha allah bu soobee yàlla yàggatul dara dina nekk si suñu loxo incha allah. ok autoproduction la wala da am ñu lay produire. autoproduction la parce que instant bii nii jotaguñu signé si yenn label yi ñu ngi am yenn proposition yi mais xam nga rek vu yaa am gën a xam industrie musicale Sénégal nu mu demee ay turu label ñoo fi nekk yaa am gën a nëw moo tax ñuy jéem a góorgóorlu di demee suñu propre moyen di demee si yenn studio yoo xam ne suñu gayen lañ di jéem a góorgóorlu mais n'empêche dans le kenn xamul. rab mu ngi dox gaal seena sagam léegi gars yi gars yi xam nañ que ni rappeurs yi ñu ngi fayeeku ñu ngi am am ñu ngi am gis bien vrai que am na ñoo xamante ne liiwaguñ si parce que balaa nga si am gis si muy bépp domaine muy domaine journalisme wala bépp job whatever you want yaa ngi yaa ma gën xam balaa nga si commencé fayeeku di nga di nga di si sonn di nga si galère mais instant bi mu ngi am 10 ans ah, parce que ñu ngi gis yenn gars di dox di jiital dekk. Mm, yaa ngi ci gis sa bopp. waaw ñoo ngi ñoo ngi sant yàlla parce que lu tax ñii ne ñoo ngi sant yàlla mooy 2013 lañ commencé. am na ñoo xamante ne avant 2013 ñu ngi fiy nekk di def si musique mosu ñoo dem concert bañ leen fay cachet ñun ñu ngi sant yàlla ñu ngi parce que ñu ngi am ay concert yoo xam ne dañuy dem di si fay ko ay cachet ñu ngi joué si yenn festival yi bien vrai que génnee gu ñu woon benn produit si ñu ngi ñu ñu ngi sant yàlla ñu ngi dem di joué ay concert yu mag ñu ngi jël suñu yenn bagage di xam nga ñu ngi ñu ngi seen suñu bopp foo xamante ne am na ñoo xam ne ba ñuy dugg toll fi ñu toll gisaguñu woon seen bopp foofu noonu mm-hmm. sant yàlla bu wara mais des na nag parce que léegi million yi lañ bëggee <laughs> demal dugg ci musique. bon musique mun naa ne ba ma si doon dugg bu njëkk ba passion la woon parce que dama amoon benn juste benn passion dafa amoon benn siste boo xamante ne moom moo njëkkoon di commencer di def musique moom da doon def rab

plus mu nekk loo xamante ni daf may ëpp doole quoi parce que dama doon gis ne à travers la musique mënoon nañ si jël kaas ñoo xamante kaasal ñoo xamante ne amuñu baat à travers la musique mënoon nga si li nga xam ne mënoo ko confier sa ami wala leneen mun nga ko def sound gars yi bu ñu ko dégloo dinañ xam ne kii dafa am lu mu métti lu ko métti lu mu génnee si xolam xam nga petit à petit ñuy dem muy gën di kii ba instant bi xëy na yàlla moo tuddoon ne rap dina bokk si sama destin moo tax instant instant bi ñu ngi gën a concentré wu kii bi si si si dafa jot bi léegi incha allah buñ ko génnee dinañ def concert tournée de concert benn concert bi ñu ngi ko war a njëkkee feene fu ma dëkk ñaniñ ah, ñu ngi ko war a teg fin avril après bu ñu fa jógee dinañ def ay concert dem Warang dem dem Mbour après si biir région yi ba ñëwaat biir Dakar tëjee tëj siwee ko fii si biir Dakar après bu ñu paree si projet yooyu loolu kenn xamul peut-être mixtape wala album.

ñëpp daal di shout out Sénégal di di la remercier yow tamit si invitation bi di naan waa Sénégal lañ xaar parce que rab Rap seen am na gang bu bees am na koo xamante ne day ñëw xëcc ko teg ko si loxoom. ok donc benn freestyle. si simb du gaynde réel du feek du naa feek nangul ma gaynde boo dul feek baa naa feek ah kër goo gis am na borom nee ma kilifa gi sukkal jéebalu jàng bés na ñëw nga tari mun nga ma xëyit mi fu ma tegee dégg danga nga aay du maak ñoom yàgg naa jàngal seen baay ah one love lu si des demal koj ko si dafa jot bi rap gaal seen ci kaw Bruce Daa the